ngeen jëf mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziyaare ñu ngi fi Caaroy seet soit Serigne Khadim Ndiaye ah monument di Caaroy doomu ndey Pape Abdou Fall ah sa patron sa xarit ah Poulain Diop Xaas mm-hmm. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaare mon ami bi yàgg na ci yow de. waaw maa ngi lay fay Lamine ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur mm-hmm. di sant sëñ Mountakha Khadim Rasoul suñu bunt ci sëñ Tuubaa muy sëñ Maodo Abi Mbàkke borom Daaru Rahmaan di njabootu sëñ Abdoulahi borom daar gi yëpp di la nuyu bu baax Lamine mhm. di nuyu sa man ci seetsi bi ngeen ñu seetsi ci sama kër mhm. pour ñu waxtaan ci mbirum actualité ak li xew ci làmb mhm. di nuyu Mame Boye Diao di nuyu doomam Badou Diao di nuyu As Ndaw Ndukkumaan barke sëñ Tuubaa Mbàkke As Ndaw Ndukkumaan maa ngi koy nuyu bu baax Pa Abdou Fall borom fiara sama xarit sama patron seede yàlla xayaartu seede yàlla lu lu amul seede baaxul muy gor di taalibe Cheikh na Cheikh Sadou di gor di nuyu Pape Mayel Maître El Hadj Diouf di wax ni Mollah moo gét bis boo bàyyiwul sa waxi ñàkk fayda yeeg sa waxi réewande yi di nga xam ni góor ci ndigg lañ koy yow kilifa ku toll ni mam booy jaaw chaque jour nga yàq ko lu mel ni xeme. jéggal ko rek non dafa ñaaw. ki yor ay doom yor ay doom ay doom rus xam nga. dafa am genre yu mel nii kenn waru leen a dékk sax xam nga ñoom kenn dékku leen micro seen ginnaaw téléphone la ñuy nekk. di wax dégg naa fan yee mu naan sax Macky Sall eh, ma mayul daf maa bu ma bindaloon pour ma ñëw boo ñëwee fii ñu lakk sagat boo ñëw fi Sénégal ñuy lakk doo wàcc boo wàccee sa tànk du laal suuf. yow yaa ngi menacé de yaa ngi menacé tànk dafa bàyyiwul sëriñ si bàyyiwul kilifa gi mais moom la yàlla teg mooy président de tous les Sénégalais ku mu neex ku mu naqari loolu la yàlla teg dañu waxante dëgg xulil xaq mu daan da ngay mën a wax dëgg wala nga fen mu neex mu naqar xanaa nag gisuma moo fi am gisuma. bàyyil propagande bàyyil propagande. mën a defal nag gisuma waaye Macky Sall liggéeyul moom kenn du ko wax. bay non bàyyil propagande bi da nga wax ci liñ la laaj. waaw Mollah Morgun bu am Mollah Mollah Morgun am na droit bu wax gis-gisam ci état bi nu muy doxee comme yow am nga droit défendre état bi. mais taxaw naan diw. day tëdd diw diw day tëdd. loolu moom garaaw loolu moom lenn loolu moom day def day def social. comme ñoom Kéba ni ñu koy defee. ak ñoom Pape Abdou Fall day def social di dimbale askanam. Issa mii du ma ma fen ma xam ko bu baax comme ni ma la xamee Lamine tey su ma déggoon ñu wax ci wax boo xam ne tegginuwul dinaa génn taxaw wax man loolu laa fi nekkal. waaw d'accord su fekkee maam booy jaaw liggéeyul. moom moom naan ay jaay na suuf ak ay jaay na suuf moom Boy Diaw li ñu ko dénk mi ngi koy doxal ni mu waree. mais lan fi nii nga bëgg a nekkee daal rek laay àndal. avocat di jaabul. avocat avocat di jaabul mooy jinne man du ma jinne nit la Xaadimu Rasuul la ñu ma tuddee. non waxuma la jinne nga mais da nga fee bëgg nekk yow daal. dama gis ci dëgg dama koy wax avocat wu Macky Sall ah, def lu ñaaw lu baax rek la fi def. non ki waxuñu dafa def lu ñaaw. amul benn première dame bu ko mas a def dugg ci hôpitaux yi di jënd ay ordonnance di faj ay nit mais wax dëgg yàlla nag nañu waxante dëgg nag loolu mus fi am nag Lamine jël Mouhamed Ali yóbbu faji mbay mbéy gis nga lim ci daj ah ak màng ak kii eh, suñu rakk ji boobu nekk ci ci ci ci ci ci guy yi Sakajor yóbbu ñoom ñëpp faji te ñoom ñëpp ay feebar yu garaw lañ yor. loolu yëpp ñu ngi koy rafet Marème Faye Sall yàlla na nga gudd fan waay. waaw loolu ñu ngi koy rafetlu mais nag terewul yow yow yow da nga far ak état moo suba di nga di nga tëgg. bool bool bool yi Sonko wax nañ ko tëgg. Ah, man lu may lu may tëggi bool mel ni dof man lu may mën a tëggalooy bool man lu may tëgg bool mel ni mel ni dof fii la loolu xanaa dafa bëgg sax nit ñi crise xanaa xamoon ne ay ay weñ boo tëgg da ngay ah, loolu da dof loo nit ñi loolu loolu mooy yëfi dof dëgg ku nekk génn sa di tëggi bool mel ni dof ah. yow loolu moo génnoon fii di ko def di Lamine di nga ne ma damaa dof di non du ma la ko parce que ko def mais réew mi man dama fee gisul lu fi jar ay tëggi bool man dinaa nekk am nga droit la ngay xëcc ko xëcc ko mais ñu bàyyi manipulation bi manipulation bi xale yi génn leen xeex génn leen xeex génn leen def lii te xale yi rek ciy faatu te yow sa oto climat ngay dugg sol rafet ah ta jël sa jël sa ay doom ne leen dem leen jàngi xale yi génn leen ngeen xeex Lamine loolu nag ku am xel borom xel yi laay waxal jeunesse bi nga xamante ni amuñu lu dul Sénégal te mënuñoo génn Sénégal te ñaan naa yàlla ñu tekki fi dimbale seen i baay jëndal leen xarum tabaski événement tabaski dafa jot nit ñi soxla ay jasneer nit ñi soxla xar yu baax xam nga taluñu ay génn fii di dee franchement les services d'ordre ngàcce lama général Moussa Fall macha allah. police ah. gendarmerie ñu ngi leen di remercier. ci lan ci ci ci lacrymogène yi wala ci dóor yi. non non tey jii boo amoon problème sa kër police ngeen njëkk xalaat wala gendarmerie. non waxuma loolu. ci lan nga leen di encouragé ci dóore bi wala ci lakk. ci liñ teg dëkk bi ci stable. ku fi nar indi yëngal ñu raq seen digg loolu an naa ci bu baax. loolu mais loolu du yoon dóore du yoon. du waxuma dóore wuñu mel ni dof ku deful dara kenn du door yow lamit kenn dóoru la kenn dóoru sa caméraman kenn dóoru Issa kenn dóoru ma man mii. mais damay tëgg bool man suba. bu la neexee nga tëggi palaat yaa xam mais réew mi ku mu ne tëgg xanaa dafa bëgg a dofloo nit ñi tëggi tëggi bool jëm kañ mel mel ni kuy taajaboon. defal attention non defuma attention li xew ci réew mi man ñëpp laa àndal ñëpp laa àndal. mais mais nag ragal féete day xañ a wërsëg mënoo am xarit mu nekk ci état bi di la dimbali di la jàppale te doo ko te lu baax. muy que mës nga contre état est-ce que mës nga contre état. ngu contre nguur sax du ma ko def. ku contre nguur mooy contre nga yàlla. ndax nguur yàllaa koy jox nit. doxalinu nguur système nguur la ñuy moom lañ jox caabi bopp réew mi. muy cër bu ko yàlla buur bi jagleel. mais taxul mu moom réew mi bu ko yàlla buur bi jagleel. taxul mu moom réew mi rek cër bu ko yàlla buur bi jagleel. ah cër boo xamante ni yàlla buur bi moo ko jagleel. mu neex mu naqari dañ ko ko war a nangul encouragé ko ayam jeexee mu dem ki toog toog ci jàmm mais rayante bi xam nga amul sens xam nga ay genre Barthélemy yooyu man bëgguma sax ñuy ñuy ñuy tudd seen i tur quoi ndax ay xale yu réew fii la rey. déet ëpp naa def bul waxati loolu bul waxati loolu bul waxati tudd loolu dafa rëy bul waxati loolu loolu. dafa nekk ci yoon. dafa nekk ci yoon te non waa d'accord dafa nekk ci yoon bul wax moo rey dafa nekk ci yoon bàyyil ba ba ba yoon def liggéey ba pare rek yow tapet nga bul def erreur dama laay bëggeel jàmm rek loo ma bëggeel jàmm man dama dama saagawuma kenn dofuma bay saaga waatee li nga dafa gën a garaaw saaga man man il est mature Khadim il est king waaw mais tamit naax day ñëw dëgg rek dëgg rek laay fekke di ko wax mais naax tamit à tout moment mën na ñëw kan mooy naax day naax da ngay judd ba naax Lamine seytaane nga nag yow barki Sëñ Tuubaa Mbàkke man fan laa toll bay naax Lamine Lamine fan laa toll bay naax Lamine. sumin mbaxana fan laa toll bay naax. sumin sa mbaxana rek moo naa dama am dëj sama yaay moo gaañu mer nganga jërëjëf loolu laay ñaan yàlla mais boo ma xoolee ba léegi nga xam ne physique baa ngi fi maa ngi entraîné maa ngi ànd ak samay rek di ànd di ñaan bas mu ndaw yàlla na ko yàlla may am ngeen combat nañ combat boo xamante ni combat bu rëy la ndax Ada Fass c'est un grand champion bu defuloon preuve duñ ko boole ak bas mu kon ñun ñu ngi suñuy entraînement di xaar le jour Ada Fass mi ngi doog am adversaire bu mat adversaire hmm? waaw. da nga wax ko dama ko xam rek di ñaanal suma rek yi am combat ñoom rek rek ñoom amet dem ñoom ñëpp. ñëw ci loolu léegi comme bi moo gën a taxaw. nga ne Ada Fass ngi soog a am adversaire mi ngi a am yàggatul 3 jours ci des xaw ma kat yàlla na ñu yàlla may fekke ak jour ba baat tontu la lamin hmm. man xale bu ma déggal ma indi la ëmb la jox lay consigne boo ko toppee doo ci du échec. te Ada Fass bu bu doon lu ñuy téye suñu loxo man la téye nañ ko bu yàgg. Ada Fass yomb la téye de xale bu tiri bu la. ñaari bëri la am. Ah. daw song la paqueté la wala mbot mi. kon Ada Fass daane na mbër na ne. wala déet ñaari nag xam Ada Fass xamul mu ne. loolay ah waaw Ada Fass nan la daane bébé bis bi. la ko daane man seetaanu ko wax dëgg yàlla. seetaanoo. Euh, kii daal laa fi suñu suñu doom Kéba Kanté bi kii. caatu ngeewal ak Ada Fass seetaan. ko. ñaari combat nga waaw kon mënoo gis Ada maa ko xam dama ko xam ba baax. Ada Fass yow tamit ba sew bi tamit dama ko dama ko ñoom ñëpp samay doom lañ bul fàtte ni man li ma xam ci làmb tey dama la koy wax tey li ma xam ci làmb bu doon football la waa FIFA dañ may jël far force boole ma fii sax FIFA ndax technique ma wax la loolu tey arbitre bu bañ naa ko su ñaari mbër yi dongalee ma wax sama mbër ni mu ko war a daanee. loolu lu lu ma yàlla jagleel la te te bas dina pas peur di peur rien de de Ada dañuy xeex ak moom bam sap sap wàcce ko bu bëree nag ñu daan ko jël bu rëy. Ada Fass moom wóorul ndax songu bee bas li bas li ma ko defal ci tablo gëj naa ko defal mbër. assisté nga ay entraînement. waaw li ma ko defal ci tablo la caaru géej ak may li ma ko defal ci tableau ci ay exécutif musuma ko defal man kay damay wax ni Ada su fekkee yàlla may na ko jàmm na ñëw rek jéppalu daanu. bas moo ma daan du gàcc comme ni ma ko waxoon ci guy gi bas daan kolifay ci amul dara lu ñuy moytu ci Ada Fass amul sabara bas tollooguñ fu ñu amee cal combat boo xam dañ ciy am calcul bas tolloogul foofu. Ada borom Dakar ngay waxal. borom banlieue bi bas mu ndaw borom banlieue bi moom laa tuddee ken bëggul. kenn bëggul laa ko tuddee xamoon nga kenn bëggul. xam ko de yow kay yaa xam dama nga laaj ci jiwaat kan moo nekkoon kenn yàgg ci man nga ngari auzu billahi mina seytaani rajim laa xawta wala xawta wala billahi azim laqool naa la jumaay tuuba jumaay Njaareem jumaay Daaru Musi Lamine ni may catoo ñaaw na bu mu rafet sax bu ma ko solee stade ngeen dem am xaalis ah yow ba yow Lamine xam nga di nuyu sa jabar nag wax dëgg yàlla sama xarit di ko ñaanal concours bi muy def yàlla na ko ci yàlla defal lu examen bi muy def maa ngi koy ñaan ci darajey sama turandoo yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed mu am lu kawe njortam ba am liggéeyam. waaw ndax nit léegi Lirou Diane loo koy wax. kooku mu ngi ci dëkk bi man gisatuma ko sax c'est que xam nga temps yi nag. day jox damaa wane mën ngaa wàcc. kan moo ko man mais xam nga ñun. xam nga liiru li ko li dagg xol bi chaque jour moo wax ko. rek dafa am jabaram may ko fukki million ak juróom ba ñett. 18 18 euh, millions. kon yow wax ko moom. déet ñaata la maye. patron Balla. waaw ah, doom sama doom ñaata la maye waaw. est-ce que <laughs> sa doom sa doom moo sa doom moo ëpp xaalis rek rek. 350 la bay. Balla Gaye 340 mille la may sumbul la buri. maa ngi nuyu sumbul ak Ablaye Diop xaas sama sëriñ. nga ne Balla mi may euh, buri. 350 mille. 375 <laughs> maa ngi lay nuyu Balla à sama waay sama doom sama xarit. liiru. namu naa la doom nday ah, fii la ëppale. sa Xaadim euh, Ndiaye mooy def vidéo fii direct nee na Balla Gaye 350 mille la may première cadeau 375 mille. la may première cadeau rek rek 18 millions. ak benn R12. R2 500 700 505. yaa ngi en direct waxal ak kii waay. ak 505. mooy lan. nee na Balla Gaye 375 mille la may première cadeau rek rek may 18 millions. waaw loolu la yaakaar rek. Ah, yaakaaruma ko loolu am. loolu am na nga koo mën a weddi ngay sóob wax yow boo wax dëgg barki sëñ Tuubaa Mbàkke 18 millions la rek rek barki oh, ah, dem waaw sa Sa Thiès 250 000 la may jaay Sa Thiès ak te ak Tecno ñu ñoo sponsorisé Tecno <laughs> waa Tecno wuy ma yow te mi ngi nii émission la def yàq na fi lu ne Sonko. ak ak boisson boobu mi ngi nii yaa ngi en direct lu nekk Sonko rek ki de. man du ma xas du ma xasaate li fi ne dama ne dëkk bi li fi ne. liir bu nangu mu dugal la Macky Sall da nga naan liggéeyut bu la neexee nga ne gisuma waaye liggéeyut kenn du ko wax. liiru bu dama sañ tontu kii dama sañ tontu. bu caaxaan jeexee dëgg des bu ci koy njaayeen ji dikkee kii du ma tontu de barke Sëñ Tuubaa Mbàkke waaw yow waaw yow ngay sóob man yow ngay man kan ma eh, liiru liiru ma jëlee say parole nag ma man du ma gees kat du ma gees ah <laughs> man du ma gees fan yi tax géej làmb ja <laughs> dañ laa ramaasoon waaw waxal dëgg doo wax dëgg gi doo wax dëgg waaw ñun waaw yow doo wax dëgg gi li ñu la fekk sa poos waxoon naa la ko te yàgg naa la koo tere ah yàgg naa tere ne am na yoo xam te doo ko doxantoo ay juin ak yooyu nguur gi da koy tere ah yi ngay def nii seen wax ju bëri ji yëpp xam naa ne am na looy jël man naka jëkk ma xam ne am na looy jël. ma ko yaa ma ko wax Lamine yow yaa ma ko wax nag yow seytaane nga yow Lamine mi moo ne ma dañ ma dañ moo ma ko wax mi ngi nii waaw. man su fekkee dafa ma koy jox saa yu soxla ak yow laa koy jël. koro dañoo dajeeg benn commissaire. ci bureau Kéba Kanti. moom xamul lu ko fii di doon dóor si mooy bi mu la waxee ne port la jëm di jëlee oto di fekk day du <laughs> Sénégal ay waay Sénégal Sénégal da am na ay dóorkat yow yow Lamine di sa doomu ndey nga koy nëbb naa ko port nga jëlee ga nga jëlee oto te bu rekkee bu rekkee ba kam lañ la fekk ah. bi bi buntu bureau bi ci buntu bureau bi suuf barki Serigne Fall billahi ak li ma sëñ Touba isaa ngi nii fan lañ daje port lañ daje. waaw fan lañ daje port lañ daje. waaw déet waxal sa digganteeg yàlla ak li nga Serigne Touba fan lañ daje. jërëjëf comme moom dañ ko yow yaa ne ramas yow moom koo waxal sosol ko sosol nga ko fi ne ko dañ ko sosol moo ko dañ ko li li am laa wax ah, Sénégal kañ lañ gëj a gis liiru ci làmp nañ waxante ne xam nga am na xam daf la nëbb boppam xam nga mi ngi nii ne la port laa jëm di génne oto te bureau Kéba Kanté la doon ut si ut si xaram tabaski ñu fa lañ ko fekk maag Issa Pouye fekk ñun dañu am rendez-vous ñoo kilifa gi dañu am non dañu am kil dañu am rendez-vous ak Kéba ndax suñu xarit la suñu doom la wax dëgg yàlla ñu amoon rendez-vous foofu ak combat dimanche noo gisee dimanche passé bi passé waaw combat bi ma gi dimanche moom wax dëgg yàlla combat la boo xamante ni euh, li ma gis daal doole feeñ na fa quoi mm. mhm. doole feeñ na fa quoi waaw doole feeñ na fa di ku xool euh, soq xam ne indi na état mais ku xool ni ko sawaay daane ndax soq bi ma analyser combat bi sax man dama gis ni soq sawaay di ko touché ci la soq soq bi muy jël bi muy song sax xool fi muy song dafa song sax yam ci ndigul sawaay daf ko bett sax. dañoo daje dañoo daje ndax dóor yi peut li may boo xamul da nga naan soq peut être xeex bi la doon daw xam nga te seetlu nga sawaay bi mu ko jàppee bàyyiwul daa jàpp rek actionné dem na ba fàqat ko sax ba ko war ndomb ci la sokk jóg xam ne am na kàttan tuuti ci la jóg réalise mais sa waay bàyyiwul mais li ma gën a metti mooy li sa waay sukk ba pare daan ko ci eh, ci soq ak état bi mu indi kon bëre euh, li Issa wax foofu ci ni sa waay ba euh, bëre nekkul ci moom ànd euh, ànd xaw na xaw na xaw dinaa ko critiquer foofu xam naa ni Issa mën na ko jël nag critiquer ko jël ko daan corriger waaw mën na ko daan jël ko corriger ko mais ku xam ko ko ni booy bi bëre di nga xam ne booy bi franchement def na effort waaw. dégg naa ci ak Issa nag ah Issa de mbër mu laaj jël décision laajal la boppam jàppal ni man na laa daan xanaa kay ñàkk bañ a wiiri wi xanaa wiiri wiiri mais bu ñu soxlaa bu fekkee moom pare na pour bëri Issa pare na pour bëri ak. Franc kontaan ci yow kontaan ci yow Lamine di wax réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm. man la Coly Faye 2 poids 110 kilos taille 1 mètre 83 man la Ada Fass 1 mètre 86 105 kilos képp kuy doomu caaray ku tere caaray daw sa yaram maa lay woo si làmb ji Ada lay wax na am nga combat bu mat combat boo leeree muy sa jaam ragalu ma loolu